may ñëw fi fi lay njëkkee Viviane kay yak zeina kayen fi sama mbokku pauvre yi ñoo ma yaa ñuy humilier de mariage bi kañ lay jeex xana li moy mariage au niveau maanaam bi moy high level wala <laughs> bi moy ban mom bi eh mariage bi man sa yuma xé rek muy gën di ala daw luy problème bi qu'est-ce qui se passe yaa ñuy humilier de Viviane dafa am say nawle yo xam dañu wara xew ñomit bu xew li jàllee ñoom ñu ngi japp seeni dat léegi nag euh, comme man dama topp mariage bi ba fàtte politique bi gis naa xale jigéen yi ñu ngi tendance booy bi France la jàngee il est beau il est beau il est gentil il est courant il kii dañ ko fal pour mu taal dëkk bi kii faluñ ko pour muy nobante wala doxaanaante kii ba jàng jotee dafa jàngi woon yor ay diplôme yu mat ñëw jëlee fi ki fi nekkoon ne maanaam wàllu courant bi dama koy destran destrantalisation destran